when people, when you have 100 bombsers this year, when at suñ amee téeméeri bombstars ci season bii nii juróom fukka ci ñoom dañ dee mun a am chance ñu mun a tukki waaye beneen season bi su ibee dañ dee am ñaari téeméeri bombstars loolu mooy wone ne du musa jeex dem naa ba xam ne lii dafa nekk problème bi nga xamante ne ñàkk liggéey bi ci biir réew mi génn school ngir ñàkk looy fayee sa jànga bi ak ñeneen ñi nga xamante ne dañooy ñàkk seen waajur yi mooy waral lii gëm naa ne lii nekk na ay mbir yoo xam ne war nañ koy lijjanti balaa ñii di dem di nekk bomsters ndik soo xoolee doo fekk kenn ki nga xamante ne jàng na bi am degree am wala jàng na jàng bu sori mu nekk di def lii loolu moo laa won ne Limbir mbir la bi nga xamantene lu koy jur loolu lañ wara xolaat xoolaat loolu moo gën ñuy yóoni police yi pour ñu jàppaleen di leen tëj mbite di leen ndax loolu du ko duñ ko te affaire bomsen bi duñ ko mun a dañ koy wàññi rek.